O pare é ngay yéeg ci kaw kon benn nit bu àttee Ziguinchor benn nit àttee Dakar àttee boobu ku tax nga tëb gañe nga xamoo dara. Sonko bu ko neexee dem jëli fiche parrainage laaj ko ko moom affaire am intéressé wu ma. mais day na pourvoi en cassation. waaye moo xam. buy jëli ceebu jënam ak wala bu jëli mbàjj wala ci sama yoon. <laughs> jakk bi sama gars yi maa leen di jaare bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal seen seen YouTube di leen abon di leen wax ngeen di abone di like di like gars yi dee leen di leen wax ne namoon naa leen fii ci Sénégal xam ngeen ne damaa génnoon Sénégal nekkuma fi woon ñu baree bari ñu ngi ma naan ma foo nekkoon foo nekkoon foo demoon ah en tout cas fi ma demoon dama siy def code parce que yéen a ma gën a xam quoi waaw yéen yéen xam leen lu ma waxut laal bàyyi leen ma def si code après mu jeex mais l' essentiel ñenn ñi sax ñu ngi ma doon wax yow waroo dem Nicaragua nangam nangam gis nga man fii laa leen koy waxee ah man Europe fuqul sama bët de man moom xaw ma ñan la Europe gondi ñi fa nekk nag moom seen wërsëg moo fa nekk ñu dem jëli ko fa man mi sama wërsëg moo fa nekkoon ma dem jëli ko fa ñëwaat naa mais nag man samay rêve ak sama objectif nekkul génn réew mi pour tekki man dama bëgg lu ma am ma ñëw fii quoi man fii laa bëgg a toog. tekki ci réew mi bokk ci ñiy defar réew man bugguma génn Sénégal pour pour pour dem pour immigré foo leen ma gis ma dem fa bu leen tiit bu leen jaaxle damay ñëwaat incha allah voilà na seen xel dal quoi ma si ñii daw ak di di di laqatu parce que defu ñu lu jaaw waxuñu ko ñun dañuy waxtaan wax suñu xalaat ci réew mi teg ko si yoon duñu saaga duñu dépassé kenn ah kon tamit war na nañoo mën a nekk si réew mi di fi di fi di liggéey tekki fi comme ñëpp comme ça. di leen wax ne nag gars yi <laughs> maître El Hadji Diouf xol bi neexul mais xam ngeen li tax neexul parce que li tax neexul lenn la mooy gars yi avant loolu sax ma di leen wax ne maa ngi ànd ak Serigne Moustapha Mbacke di seetu Serigne Abdoulaye Mbacke yàgg ngeen maa xamee ak moom di ñaankat boo xam ne lépp lu jëm ci wàllu ngóor day yor biteel boo xam ne biteel bu biteel bu yéeme quoi da ngeen di jël numéro bi ngeen jokkoo ak moom day ñaan tamit day listixaar mais xam ngeen lan moo tax gars yi Eh, ñom ñi seen xol yi neexul xamé lan motax parce que yow euh, wa wa wa cour suprême xam nga ñom lan lañ wax nous sommes lim du yoon dañ né nim ko atté ci façon bi quoi la façon de xawma nan ko mëna mëna façon bi nga xamné mom la fay atté ñom façon bobu lañ wax né mom baaxul dañ ko euh, tribunal bu Dakar légui tribunal bu Dakar de dafa rectifier lañu ñu waxoon ne baaxul ci attewu saaba si fay bi ñoom loolu la ñu ratifié rek daal di dëggalaat atte ba saaba si fay moo atte woon ñoom dañ ko dëggalaat léegi nag yéen a ngi imaginer tey cour suprême saaba si fay atte na ñoom ñu ne ko li nga atte kat bonul de waaye ni ko atte léegi dañ lay dañuy yóbbu affaire bi dakaar pour ñoom ñu atte ko ci beneen façon bu gën bi nga ko atte woon léegi yéen a ngi imaginer ñu ñoom ñoo ko renvoyé Dakar waa Dakar atte sans façon bi que Saba si fay àtte woon àttewaat ko mais ba léegi dëggalaat li Saba si fay waxoon léegi ñoom ñu demaat cour suprême cour suprême ne ñu ne Saba si fay li mu wax baaxul Dakar li ñu wax baaxul est-ce que yéen ñu imaginer loolu quoi maanaam loolu bu amee mooy ngeen justice su Sénégal sax ñëpp xam nañ ne ni muy doxee normalul mais bu ñu amee ay juges yoo xam ne dañuy gëm yàlla gëm ni Macky Sall yorul seen wërsëg ñu àtte dëgg benn ñaar. ñu dem ci ñi nga xam ne jàpp nañ ne sax Macky lañ fi nekkal ñu continuer di fenloo ñi vraiment bu ñu eggee foofu moom na ku nekk jël say responsabilité yaakaaruma ne xanaa xanaa cour suprême yab ngeen seen bopp parce que loolu ba leen ko defee seen bopp ngeen weddi tey ñoom buñ ñëwaatee ci yow ngeen newaat li ñuy attewaat du dëgg mu yéen booy yaboo leen yabee woo leen justice Sénégal noonu yabay woo leen état Sénégal noonu bu ma état wu Sénégal nag état Sénégal du Macky Sall état Sénégal du APR képp kuy sénégalais ci état Sénégal nga bokk yabee woo leen état Sénégal yabee woo leen république bu Sénégal yabeel gu toll ni xanaa ñii ñëwaat ci yéen ngeen ne da ngeen leen di jox dëgg te ñoom fu ñu dem ñu ne leen amoo leen dëgg fu ñu dem ci justice justice da leen daan jox dëgg léegi nag bal bi dafa tourné te ñoom bàyyiwuñ xel ne bal bi nekkatul ci seeni camp yéen instant yi contrôlé te leen dara yow depuis Macky Sall nga ne bu koto boobu nga waroon a xam ne pour nga neexle dootul yoom parce que gars yi xam nañ ne comme yow bokkatoo non fii sa Amadou Ba bi du moom moo la ciy génne de gars yi xam nañ loolu bu baax instant yi dañ koy teg ci yoon sinon après 2024 day métti si ñoom ñoom xam nañ loolu instant yi li ñu mën mooy atte yoon comme nag instant yi baax la woo muñal dem cour suprême di humilier sa bopp nag vraiment yéenewu ma ko quoi bii mooy ñaari yoon ñu lay jàggi di ruuñ Sonko jàggi na la Ziguinchor Sonko jàggi na la Ndakaaru maatam Kolda foo leen dem mu yenu la dóor ci suuf muñal muñ leen muñ leen jël leen galaas ngeen tëmbal ko seen xol yi ngeen seddal seen xol yi ngir yàlla yéen foo leen toll da ngeen di gëmloo nit ñi ne da a kontaan te fekk da ngeen a mer seen biir xol yi muñ leen muñ leen muñ leen lii bu yàggee ay goitre la leen indil ay ay cancer ay hémorroïdes ndoxum siti kuré ba te yooyu bu bu gis nga yooyu muy mu te ngeen a régler muñ leen waaw baax na. ok les gars dama war a dem ñibbi Sénégal instant bi nag dama bëgg ñu àndandoo ngeen xool voyage bi quoi incha allah fi ma war a jaar aéroport ba Sénégal incha allah rabbi quoi let's go gars yi ñu dem. voilà gars yi instant bi nak ma ngi nek ci auto bi wara dem aéroport quoi mais instant yi may dem ni nak bëgguma mo dara dara ci ñibi bi xam nga ñibbi xam nga loolu ñuy wax naan gan moom bala ngay bëgg a toog rek sa heure ñibi jot quoi instant yi nak vraiment bëgguma mo ñibi parce que vacances yi neex na neex na benn peru neex boo xam ne mooy loolu dëkk bi macha allah dëkk bi rafet na mais maa ngi ñibbi mënu ma si dara vala isai exina aéroport ma ngi diri sama valise wara a dugg ci bir pour enregistrer ma ngi di dox nak mais affaire yi dafa diis gis na ma maa dox di waxtu instant bi sama ben fan sa mo ma gis di ma wo pour ñu ñëw fataw man ak mom ndeysaan mom moo accompagner nak ba ci bir ba ba ba ba ba ba enregistré xam nga ndegati sénégalais yi ñu ngi fépp quoi ku gis ma rek ndeysaan woo ma ma ñëw mu photo ak man laaj ma sama numéro et cetera gars yi dañoo baax quoi gis nga ndeysaan moom laay waxal nii bay reetaan ndeysaan xam nga sénégalais yi ñu ngi fépp quoi ndeysaan yi romb naa foofu ba léegi maa ngi buux ba léegi maa ngi buux maa ngi ak sama valise bu diis di buux rek di buux rek gis ngeen ma di buux te aéroport xam ngeen lu si gën a soof seen yoon yi niñ koy dëppee di ko dëppee ngay jubal ba ne war a jàddaat loo xam ne mën nga ko def tout droit mais déedéet dañ naan la da ngay jàdd nga jubalaat xoola dama mujj dama doon mbëkk barrière yi sax parce que affaire yi dafa diis te maa ngi yor sama téléphone di filmer bëgguma leen affaire yi dara rëcc leen si gis nga espace bu ndaw bi xam nga fii da ngay mbëkku maa ngi doon mbëkku rek <laughs> mais dara l'essentiel naa fexe ba jàll rek mais sonn naa sonn naa ku leen wax voyage méttiwul da leen di nax affaire yi metti na torop torop torop torop torop mais alhamdullilah quoi parce que egsi nañ ci jamm ñi mais dañu bëggoon ñi nga xamne ne ñu voyager ñu am toute expérience ci voyage xol yoon bi xol fi ngay jaar xol naka ngay def ba dugg ci avion bi et cetera yooyu xam nga dafay am ño xam dañ ci bëgg am xam-xam quoi voilà gis ngeen ba légui ba légui ha ba légui gis ngeen ma ba légui ma ngi buux aéroport bi ngandé gi mo ngandé kenn mënu lako wax yaatu na rafet na mais macha allah aéroport Sénégal bi rafet na mais aéroport yi may gis nii gars yi ñu may laaj naan ma fan nga dem mais duma leen ko wax ñi xam aéroport bi xam nañ fan laa demoon quoi gis ngeen instant boobu enregistré naa ba pare yénnee ko naa sama valise bu tiis bi instant bi nag maa ngi jël sama direction pour mën a dem fi nga xam ne fi laa war a toog pour xaar sama vol mais ba léegi yoon boobu tamit dafa xat xatul sax mais dafa sori manam xol gis ne ndegeti man enregistré bi mo sax ma ngi fofu taxaw quoi gis ne parce que tellement que affaire yi moo gudu yi ngay sa bo jox nañ ma sama billet d'embarquement yene ngi gis avion aéroport bi te lii ben espace bu ndaw la espace bu ndaw la du dara ci aéroport aéroport bi mo yaatu bobu ma ngi wax rek xam ngeen man moom moy loolu man fuma dem damay bëgg a wane li fa nekk quoi gis ngeen ma maa ngi noonu ba léegi di dox bër sama comme li gars yi di la xam ñu ne dañuy bër billet avion bi mais lii du billet lii ticket d' embarquement la quoi moom ngay dugal noonu si biir affaire yi voilà pour comme ça espace yi nga war a jaar pour ñu lay laaj dafay jege jegeyantoo doo mën a jël ticket d' embarquement bi di ko dugal sa saak wala sa poche ngay obligé bàyyi ko si biir passeport bi rek comme ça nga mën a noppalu instant yooyu yéen ngi may gis maa ngi yéeg noonu ci escalier bi mais solu ma sama cab bi instant yooyu dañ ma sumbir sama kap xam nga rek aéroport dafa bari ay contrôle ñuy contrôle fii contrôle fee fu nekk ñu dugal la moo tax xam naa ne jub rek am solo ku dëng ba aéroport di nga jub force parce que foofu mënoo fa jàll dara te tegoo ko si yoon voilà gis ngeen maa ngi dox ba léegi pour dem fi ma war a embarqué ba léegi maa ngi dox yéen ngi gis depuis ma enregistré ba léegi maa ngi dox pour egg foofu xam nga li bo telol ex man nga rater sa bool parce que aéroport bi dafa gante aéroport bi dafa yaatu macha allah mais ba légui ma ngi dox ba légui ma ngi dox ma ngi dox di xol iya, <clears throat> di découvrir pour man tamit iya, ma iya, man ya, ci wala xamalé quoi wala mais xam leen aéroport bi yaatu na yaatu na gis ngeen sama ginnaw ni mu soree feulé feulé yeen koy seen ni mu soree ci ginnaw lampe yi mu ngi noné di continuer di dem te ci kanam tamit lu toll noonu moo fa nekkaat maa ngi wax rek maa ngi wax rek gis ngeen ma xool leen ci kanam léegi ma indil leen ko gis ngeen yéen ngi seen fële lii ni mu guddee di kenn mënu ko feesal parce que aéroport bi moo yaatu gis ngeen instant bi maa ngi dugg ci tunnel bi pour mën a dem yéeg ci vol bi voilà pour takk sama ceinture quoi war a mën a décoller décollage nag lu metti la quoi décollage pour ñi ko xamul benn affaire la boo xam ne affaire bu méttee méttee méttee la bu dee amoo expérience bi mosoo yegg si avion muy décoller c'est boo amul fit yow nit ku gëmul yàlla sax laa dama naan doo yéeg avion quoi pour nga yéeg si avion il faut nga gëm yàlla parce que avion du ay caaxaan surtout buy wàcc oh pop pop les gens yi nag ñu ngi waaj a départ gis ngeen. main non soal sama samay lu di bandi lu di jay Aver gis <laughs> ngeen ma de maay non tok sol sama kos di bandi bandulu duma ci len nak demay sop kasse ya. wala wala di wiri wiri jaari ndari fu nek mo tok xol fa kos xol droit sans avion bi déparagul mais buy dem dañ nan ñu def suñu téléphone yi mode avion comme ça pour sécurité comme ça voilà gis ngeen ne yi egg naa Dakar nag wàcc naa aéroport Diass mu ngi noonu gars yi buux seen valise pour génn si tunnel bi pour dem encore enregistré foofu tamit beneen temps la xam naa ne temps boobu dama leen koy tëbal rek parce que gars yi seen affaire dara yombul quoi lépp ba metti mais alhamdulilah gis ngeen maa ngi noonu di génne sama passeport parce que xam naa ne saa yi dañ koy laajte. paa pour mën a dem foofu enregistré wu après mën a génn dem sama yoon nag mais fi ngay taxaw di xaar say valise sax foofu rek laa la wax def naa fa presque 40 minutes quoi parce que valise yi dañoo bari te te te nit ñi tamit dañu bari woon quoi mais alhamdulillah comme egsi nañ si jàmm rek moom alhamdulillah quoi voilà maa ngi noonu ñëw naa léegi nag damay dem jël oto bi pour mën dem bi quoi voilà maa ngi noonu si yoon bi di ñibbi nag voilà instant bi instant bi trois heures du matin moo jot parce que dama yàgg aéroport aéroport une heure laa fa mais trois heures laa fa génn trois heures du matin imagine toi def naa foofu deux heures de temps mais gars yi nañ ko yemale fii yaakaar naa ne kontaan gitu. ngeen waaye ba tey bala ñoo commencé du ma dañ di leen présenté Serigne Saliou Mbacke borom jurul ku yàgg siraan sama vidéo yàgg ngaa gis ma leen koy présenté muy ko yàlla dénk xam-xam loolu nag macha allah li nga wax mooy dëgg kon boog Serigne Saliou Mbacke borom jurul présenté waatal garab gars yi mën a xam njariñ li borom jurul cabinet la yoo xam ne am na Dakar Dakar rek la ñu amoon léegi am na Mbour am na Touba ñoo ngi ci sant yàlla mhm. garab bi day faj quinze maladies ci na nga ko gisee nii xam nga étagère nga ko fekk doo gis benn yoon ñu dugal ko ci frigo du xeeñ te boo ko tegoon mois Qu'est-ce maladie lay dindi. muy les cité les ballonnement les les metti xar estomac insomnie sinusite fatigue général diabète tension perte balance règle douloureuse l'impuissance sexuelle da koy dindi bam jeex te moom boo koy naan da ngay gis résultat te doo si jël lu bëri macha allah defe naa ne ñoo ko déggandoo Serigne Saliou Mbacke borom njurul moo nekk noonu garab gi nag mi ngi tudd borom njurul muy garab gi gaawal nga gaaw nga contacté ci numéro téléphone yi ma leen defal ci suuf képp koo xam ne bëgg nga ci garab gi gaaw nga gaaw contacter cabinet bi la gën a jege boo ko defee incha allahu rabbi doo ko aussi képp koo xam ne bëgg nga mu seetal la defal la ay ñaan xam-xam bi sell na te macha allah li ma gën a neex ci moom léppam alxuraan la waaw seet moom wax dëgg yàlla yàlla may nañu ci seet nag ñu ngi koy defee ci xilmu nujum muy xam-xamu biddiw bu dee listixaar ñu ngi koy defee ci alxuraan ñun dañ lay wax lépp loo xam ne weesu na ak li nga xam ne yaa ngi koy dund nii te xam ni lii moom mi ngi lay arrivé moo xam métti na moo xam méttiwut yaa ngi koy dund nii ak li nga xam ne ñëwagul xëy na dund goo ko dana am signe yu la koy wan den la wax signe yooyu wax la sabab bi lépp lu la dal wax la fi ngay teg sa tànk wax la li nga xam ne moo lay yàqal ba noppi wax la sarax ya li nga xam ne boo ko defee rek mu dañ macha allah ñoo ko déggandoo gars yi Serigne Saliou Mbacke borom julul moo nekk noonu xam-xam bi set na sel na te léppam alxuraan la kon boog gaaw leen gaaw ngeen contacté ko Serigne Saliou Mbacke borom julul kontaan naa ci li ngay saafara jafe wi